se débat financement et euh, l'origine même voilà des des des alors, financements. alors le financement de partis politiques effectivement man boo seetloo euh, pratiquement depuis Senghor ci la benn loi amoon ba tey Diouf defu si dara Wade defu si dara euh, Macky Sall defu si dara. Mhm. et donc loolu c'est loo xam ne ñun au niveau de la République de valeurs ak le président Thierno Alassane Sall ñun dañ jàpp ne lu ñu war a légiférer la parce que bu fekkee ki yootu réew bàyyi nañ ko de sorte que xaalis bi mun a jóge fu nekk. loolu day wane ne mun na euh, nu mu tati obéir ay logique ak ay intérêt yoo xam ne du forcément intérêt dëkk bi mm-hmm. moo tax ñu war a ñeg loolu war ko ñàkk nag dafa laaj nit ñi toog waxtaan ni un parti politique bu defee diir sàngam deful lu demulalu boppam élection li moo ko ciy dal parti politique état mun na ko accompagner comme ni mu accompagner presse bu dee day dem euh, nu mu tati élection régulièrement donc ñu def ay mécanismes yoo xam ne day leer nañ comme ça mu mun a nekk. Mm-hmm. maintenant venant ci li nga li nga wax mooy débat bi fi mu jógee euh, subitement rek ñu ne am na opposant bu ñu kii euh, bu ñu financé de l'extérieur ñun liñ mës a gëm te na wax na ko récemment si sorti euh, publique am bi mm-hmm. mooy gis nga ki accusé euh, moom mooy indi mm-hmm. firnde li mu wax loolu nag juraloon nañu fi coow ñun opposition au niveau même ay parce que ñun dañ mës a gëm ne gis nga li lii dëgg euh, du Jean wala Modou wala Ibrahima wala Pathé boo ne diw dafa sàcc lii wala dafa jot li tegal taabal bi lu ah, tax def gëm d'accord or ki wax député la li mu wax dafa yomb ah nee na lettre am na <laughs> loolu luñ mën a luñ mën a fësal la. mais mais mais ki mu accusé xëy na euh, benn euh, prétexte la rek. Mm-hmm. pour ñu wax ci yeneen parti yi. Mm-hmm. parce que aussi voilà les partis politiques au Sénégal. souvent leader yi ñoom ñooy yor parti bi ay nit la yoo xam ne souvent ils ont exercé le pouvoir. Mm-hmm. xamaluñ leen benn liggéey bi bon on va prendre le. exemple de Thierno Alassane Sall il voyage beaucoup mm -hmm. euh, la caution n'a pas été un problème pour vous souvent on nous dit que les les, des membres moo koy indi mais est loolu loolu dina mën a tenir loolu alors maintenant bu ñu duggee dans le fond de de ce débat le le financement des partis politiques est problématique man su ma ñëwee su suñ parti. Mhm. d'ailleurs loolu la tooñee sax mooy amoo leen xaalis. Mhm. parce que quand nous on essaye de vivre et on est en train de vivre sur fonds propres bu ñu amee. deux cent trois cent cadres par exemple je donne juste un exemple comme ça ku nekk joxe benn trois cent mille wala deux cent mille on fonctionne bon an mal an avec ça on d'accord ak un membre boo xam ne xëy na mun na am un matériel mettre ko à sa disposition mm-hmm. ki yor ordinateur mettre ko à sa disposition ki yor ingénieur yoom mettre ko à votre disposition donc nous on fonctionne sur cette base la mais li reetaan lu fii nii au Sénégal moom mooy parfois da ngay gis de façon exagérée je donne un nom et mm-hmm. situation bi élection locale di di waaj deux mille vingt et un bi gis nañ ku mel ni Yankhoba Diattara di may deux cent millions ci biir Thiès. ba ñun ñu ñu euh, waxoon si porté woon si plainte et cetera mais loolu noonu nit ñi dañ ciy teg bët xam ne lii jaaduwul mais kenn du wax. on laisse passer par perte et, et profit. souvent quand ça vient du camp du pouvoir gars yi se posent pas de questions. se disent que loolu moom moo moom moo jaadu voilà ñaar ñëpp ñaar côté yëpp la ñu a. saytu non ñaari évidemment ñaari côté yëpp. parce que dañu monde dañu nekk ci monde boo xam ne nag euh, boo intéressé woo tuuti ci géostratégique u dëkk yi mooy xam nga ni dëkk dëkk yi dañuy jéem a am emprise ci yeneen dëkk yi or am emprise ci yeneen dëkk yi moom mooy jéem a influencer ay acteurs foofu pour ñu doxe sa intérêt. loolu boo gis nañ ko situation ba Turquie. Mhm. Euh, gis ngeen école Yavuz Selim yi ñu toppoon daji leen yëpp. parce que mhm. gis nga dafa am ñaari bloc yoo xam ne aujourd'hui dañuy ut am hégémonie ci àdduna bi mooy Qatar ak Émirats arabes unis mhm. loolu c'est une réalité Qatar bu demee biir Europe modèle bi muy jël mooy sport beeg ak banlieue yi tax nga dem dëkk yu mel ni France nga gis banlieue yoo xam ne à la limite day nekk dëkk non droit. gars yi di instiguer ay affaires donc loolu c'est des réalités mënuñ ci échapper ñu au niveau de l'Afrique rawatina Sénégal surtout ak. ressources yi fi commencé génn mais encore une fois mhm. le financement des partis politiques ñun au niveau de la République des valeurs nous sommes preneurs c'est tellement vrai que Thierno li mu njëkk a def sur la base de quoi lañ ko war a def natt parti xool ba xam en règle xool ba xam seen participation élection mais aussi seen seen seen justement j'en arrivé pour wax la mhm. euh, euh, deniers publics yi ñu ñu ci bàyyi xel ak euh, financement des partis politiques Thierno wax na ko fii nii waxaati ko ay yoonu yoon dafa mos bokk ci ñu bañ ni nañu jox xaalis xaalisu dëkk bi defe ko ay mobilisation parce que ministre baa ngi fiy ñëw mhm. il dit boo liggéeyalee nit ñi boo fiy ñëw aajowul nga jox leen xaalis pour ñu ñëw dañuy ñëw naturellement bu ñëwul aussi doxi seen soxla mais le problème est réglé mhm. donc loolu noonu suñu ADN la bokk maintenant bu ñu ñëwee ci comment on peut le faire man gëm naa ne parti politique bu ne def na fi vingt ans mosul demal dama joxe chiffre âge euh, nii rek ah. da gis koo xam ne def na fi vingt ans mosul demal boppam. élection c'est vrai donc il est parti politique en vertu de et pourquoi juste nekk benn moyen de pression sur les gens wala sur capter des fonds donc loolu déjà c'est des choses yoo xam ne dañ ko war a teg stable bi après acteurs yi euh, toog waxtaana ni lii ak lii moom moo na nekk beneen affaire bi may wax moom mooy euh, du côté de de l'opposition l'État a tous les moyens parce que pour pour contrôler affaire wa donc État yi day soob nii rek État day soob ci loolu laa doon ñëw mmh. État day soob rek di wax nii État bu bu demee ba xam ni république des valeurs duggu na ci lii am euh, élément yi mais qu'il amène ça à la justice et que la justice se déroule mm-hmm. par contre li ñu war a poser nag moom mooy li voiture AD yi ñuy gis ci biir cortège yu politique yi biir campagne yu mairie yi biir campagne yu législative yi et biir campagne yu présidentielle yi mm-hmm. et ça c'est le bien public est-ce que war na demee noonu je doute bon carburant yi ñuy joxe ñuy defi campagne gars yi dem yooyu noonu c'est des choses yoo xam ne war nañ ko teg sur la table. mais est-ce que c'est pas un mm. débat boo xam ne. ni ko euh, maanaam euh, un garde du pouvoir posé jëmale ci opposition. Mm. noonu ngeen ko waroon defee yéen tamit. ma la ko j'ai dit nous sommes entièrement d'accord sur l'opposition mais xam nga opposition lan mooy gàllankooram. Mm-hmm. mooy du moom mooy dogal. c'est ça aussi dogal bi dogal bi Sénégal da ko jël jox ko nit kooku moo war a dogal dama ne ñun d'accord nañ. ñu légiférer ci loolu. loolu aussi dafay indi beneen problème mooy suñu institution yi nga xam ne xëy na euh, amuñu indépendance leen permettre ñu def seen liggéey de contrôle jëm ci exécutif l' exécutif est trop fort. mais mais c' waxuma sax trop fort mais dafa c' est à la mm-hmm. limite pour les autres euh, institutions. et loolu danga koy gis fu nekk député bu taxaw nii man député Macky Sall la député Ablaye Wade lañ doon wax. ñeneen mm-hmm. ñi député Diouf xëy na lañ doon wax j'étais moins jeune peut-être. mais je veux dire ñun dañu am un problème structurel boo xam ne buñ ko réglé wul mooy la vassalisation des des institutions aux politiques. et loolu dafa doy waar li ci mais da ngay gis un. ku ñëw avec aucune compétence avec aucun vécu mais fekk fi fonctionnaire yëpp yéeg seen kaw avec euh, rémunération bu ëpp confort bu mm-hmm. ëpp accompagnement bu ëpp et yóbbu affaire yi ci ay logique yoo xam ne ça ne répond à aucune cohérence économique ni une cohérence stratégique mm-hmm. et donc la le le financement des partis politiques munta ñàkk et ça permet à ce que le jeu sax d'ailleurs gën a mën a leer mm-hmm. au niveau de la République des valeurs chaque année ñu déposer suñu état financier loolu lañ al état à sa charge maintenant bu gisee ne am na lu louche mu ñëw ñun nos portes sont ouvertes ah.